Rose Fatima Tatal di secrétaire général mouvement Kaolack au cœur ñuy nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfal ci seen teewaay yombul oo ay nit ñu uyu si la waaye sant yàlla ba ngeen xamee ni jaral nañ leen ko te ñoo ngi ñaan yàlla ngeen def bu mu doon mukk loo xam da ngeen koy rabbi parce que mouvement Kaolack au cœur dafa judd ci biir Kaolack boot képp kuy doomu Kaolack muy góor di jigéen di mag di ndaw ndax ñun ñëpp ñun ñoo bokk benn feebar bi Kaolack depuis mën nañoo wax ay ñaar fukki at dañ koo gis ci benn melukaan boo xamante ni neexul kenn dëkk boo dem foo jublu ñu ne la Kaolack dafa salte Kaolack nii Kaolack naa mën nañoo nangu ni Kaolack dafa tàng ndax yalla ñu ko jagleel loolu climat bi la mais dafa salté ñun la ak ñi jité suñu dëkk ñi jité suñu dëkk nak dañu bëgg fi nekk ni ñu jankonté ak ñom ñi nga xamante ñogi ngi inshallah élection yi di ñëw di 22 janvier ñu dem ak ñom gis sen programme waxtaan ak ñom ci melokan bo xamanteni dañu téyé kaw la ci anam bu muccu ay ndaxte dafa jot dafa jot surtout nak ñun jigéen ni ñun jigéen ñaa ak jeunesse bi parce que jeunesse bi dañ leen di employé di leen utiliser de tout temps di leen defloo ay jëf yoo xamante ni du noonu léegi nag ñun population calokoise ñu ne nag jot na nag ñu consciente ñu gëm suñu bopp ba am li nga xamante ni moom la ñu bëgg li ñu bëgg mooy ku ñu téyal suñu Kaolack bi ci anam bu mucc ayib ku ñu defaral suñu Kaolack bi créer suñu gone yi ay emploi ñu am ay bërepp yo xam dañ ci tok ba mën di suturlu ndax mëna dimbalé dimbale seeni waajur ñu yaakar nak ni bu ñu dajee ñoom daañ ñu wax ku ci nekk li nga xamanteni mom nga nar bu nexé yalla ta la nga nar itam ñun dañ cey nara tek suñu bët tek suñu tank ngeen mën ko doxal ba nga xamanteni kaw Kaolack dina naat dina melni comme yeneen dëkk yi nga xamanteni ñu ngi leen di tudd ndaxte nag bu ñu faté ni fi nekk ni moy xolu Sénégal fi la ñëpp di jaar pour dem fii la lépp nekk bu njëkk dañ daan wax Kaolack deuxième ville Kaolack bassin arachidier Kaolack lu baax dañ ko daan déggee bëgg nañ nag lu baax loolu dellu si mouvement Kaolack au cœur boobu ñu leen di xamal ni looloo ko tax a jóg te nekk ni tey jii la ñu def suñu lancement officiel di wane suñu bopp pour ñëpp xam ñu ñëpp mën na jàpp ci liggéey bi ñëpp mën a xam ni avenir u Kaolack moo ñu tax a jóg ñëpp xam ni bëgg Kaolack jëm kanam émerger créer emploi éno rénover innover te incha allah bi ñoo ngi ñaan yàlla yàlla jëmale ñu ji ñu bëgg nag élection yi ñu dem incha allah le 22 janvier nañ leen ko defee ci anam yi gën a rafet anam yi gën a teey anam yi gën a yaru ñu nangu kenn koo xamante ni dafay dugal ci jeunesse bi loo xamante ni ëllëg say waajur ñoo ciy sonn. Thank you.